mais bu ñu leen libéré moi j'en prends acte parce que nag justice am na sañ-sañu bàyyi leen bu ñu leen bàyyee. kon xanaa ñi annoncé bàyyi Ousmane Sonko te boo moytul tey <laughs> xëy na ñu ñu yegg ca. loolu bu amoon dalay bett kon. loolu gëmuma ko moom. lu tax ah mais pourquoi ko bàyyi. xam nga boo xam nga Ousmane Sonko même grève de la faim bi mu fi. waaw tudd fan yii. waaw dara du ci dëgg. génn ci la faim day wax lu ko neex. luy mosul grève de la faim mosul grève la moo am. lu am. xam nga Ousmane Sonko dañ ko condamné par contumace. oui bu ñu condamné par contumace pour nga mën a def appel da ngay constituer prisonnier wala ñu jàpp la ca la tax ñu condamné la. yaar yi dara la ci defut kon su ko defee sa peine est définitive. li Ismaïla Madior Fall wax. li Madior Fall nañ di turam ci liste électorale yi. donc dootu mën a wote dootu mën a falu dootu mën a fale. ba ñu ne notifié nañ ko yónnee. waaw xëy na sax léegi ñu révoqué ko ci mairie Ziguinchor ah en tant que loolu moo jiite ko.

pour ñu bàyyi ko bu ñu ko bàyyi woon du ñibbi këram day dem directement. ci nga dem bu dem seeti ko ba ay ñoom am si ba sax gisu ko li ñu gënaloon mooy gisu ko situation bii nii loolu mooy gisu ko si abib mel ni ku doon jooy sax loolu ma ne gisuñu ko gisuñu Ousmane ko mos sa grève de loolu nag yéen journaliste da ngeen ci war di góorgóorlu gis nga dama wax ne ab su ab avocat bu wax ci client ce n'est pas une jour une source Clédor hmm. li mu doon wax dara amu ci Ousmane Sonko mos sa grève stratégie bu tegoon la nag pour ñu waxuñ ñu ne ngi bëgg a dee mi ngi sukkuraat mi ngi ci réanimation su ko defee ñu may ko liberté provisoire bu génnee hmm. ci juge bi lay dem constituer prisonnier pour mën a anéantir la condamnation bi ñu ko def par contumace c'était tout ça moo tax bokk boole gi ñu ci boole sëñ Muntaxa naqari ma ah parce que kenn bëgg ko toll sëñ Muntaxa kenn mënu ko dugal ci ay fen ak caaxaan malheureusement dem ay waay wa ay bokkam dem nañ fa ak waa passé ñu ñu mais loolu nag moom ma ci métti trop parce que. mais yow li xam ci lu Ousmane Sonko ne. da xam nga ci lu mu ne. xam naa ne gërëmut de xam naa ne nekkul woon réanimation. xëy na nekkul woon réanimation. gërëm dama ne gërëm de la fay mosu ko def. xëy na gërëm gërëm parce que xam nga gërëm de la fay y' a plusieurs types de de la fay y' a boo xam ne doo lekk doo naan dara. boobu am na. Hmm. boobu ba Pape Alé Niang gërëm total lu def moom. par contre Ousmane am daa daan na mos dara. da mu def yóbbu ku sant Cissé <laughs> waaye gërëm de la fay moom comme bu ko togal defu ko bu total defu ko da doon mos waaye xam nga 30 jours nga naan da nga ko gërëm la fête Fatou loolu waxu caaxaan la rek. loolu <coughs> la ci naxee la nekk. li muy gën Ousmane Sonko moom toute sa politique mooy fen mais li ma la wax cette stratégie bu la moo ko avocat am pour ñu fexe ba am possibilité anéantir procès bi. waaw procès bi ñu annulé ko su ko defee ba la ñu ko reprendre ba di ko jugé waat. Hmm. élection yi ak si mu bokk mu nekk candidat. c'est-à-dire que Ousmane Sonko nekkandaa jë maanaam bëgg bëgg jaral na ko fen nekkandaa jaral na ko woo nit ñi ci musiba ba fat ba ay nit di faatu ay alal réew mi di yàqu ça c'est extraordinaire. léegi kon loolu ngeen xam. non man xam moo tax waaw bon su ma waxee mooy ñi nga xamante ne xëy na ñoom ñoo ñoo déggee foofu. Ah, taxawee taxawaay bi. ba appel yi bëri na. Oh, ko bàyyi mais du leen wuyu. du leen wuyu lu topp parce que xam nga non du ñëw rek parce que nag Ousmane Sonko fit na jëm teg Sénégal diggante 2021 léegi di ko may liberté Ousmane Sonko waratul gis jant bi ci li ko def suñu dundam. Hmm. même bu ñu koy condamné perpétuité la ñu koy condamné. donc loolu loolu état bi jël na responsabilité du ci dellu ginnaaw. daanaka kon liberté du ko am. ban liberté xam <laughs> ñi koy agité di wax naan même négociation on a vu même. Juan Branco du tout dañuy wax rek lam ca bindoon Juan Branco barki démb. waaw waaw waaw kooku kooku gisu sax négociation. gisu ko sax bay wax ak moom. et d'ailleurs d'ailleurs à la limite c'est manque de respect aux avocats sénégalais de Sonko Ciré Clédor nekk fii ñoom Demba Ciré Bathily ñoom Bamba Cissé ñuy béy sa petit tubaab laa muy muy mbële li ça c'est même manque de respect au Sénégal ah, franchement c'est-à-dire que da nga wax c'est-à-dire que Ousmane Sonko musul grève de la faim li mu bëggoon mooy def stratégie ba ñu bàyyi ko may ko liberté provisoire mu dem constituer prisonnier pour anéantir sa condamnation par contumace reprendre ses droits civiques pour bala ñu ko jugé waat élection yi ak si mu mën a nekk candidat c'est-à-dire nekk candidat jaral na ko fenn. jaral na ko woo nit ci mortel combat jaral na ko gatsa gatsa jaral na ko cooki fee Sénégal yi di faatu seen alal di yàqu ku mel noonu bala génnati kaso bi dana wax lu sedd wecc dem boo njaay ni bis bu président Macky ci demande ñu bëri ci jëm ci bàyyi Ousmane sonk loolu mooy tàmbaliwaat sa xeex ak moom. wala ah, sa rupture ak moom ba tey dafay. bien sûr et puis xam nga dama am loo xam ne dama ko bëgg a teg dama gis ay association islamique la ñuy wax nañ bàyyi gis nga Sénégal dañ ko organiser rek seen république justice mooy jàpp justice mooy bàyyi. Hmm. il ne revient pas des associations islamiques ñuy wax nañ bàyyi ñi nañ bàyyi ak naan ay ñoo xam ne dañ leen jàpp ay prisonniers politiques wala ay délit mineur comme ñooñu ñooñu def lañ def bañ bàyyi leen benn ñi nga xam ne aussi ñu tudd leen nañu téye nañu gérer seen diine te bàyyi république bi. Sénégal loolu la loolu la réew mi tëddee constitution bu Sénégal sëriñ si dañ ak waa diine dañ leen a bàyyi seen diine ñu di ko sori seen bopp yoonu état nekkul. mais mais ma rek la gestion de la république. revient aux politiques. Ah. pas aux marabouts. c' comme ça que le pays est organisé. Mm. kon nañu bàyyi magistrature ñu def seen liggéeyu magistrat. sëriñ si def yëf seen yëfu sëriñ député yi def seen yëfu député président la di yëfu président bi nekk ñu bàyyi yàlla na muy def yëfu yàlla c'est comme ça mais ñoom bu ñu jàppee ni stabilité réew mi tamit bokk na ci fexe stabilité moom ñooñu fan lañ ah, nekkoon génneewaat Ousmane Sonko dama ne ñooñu fan lañ nekkoon di Ousmane Sonko di taal réew mi di gën deux mille vingt et un léegi fan lañ nekkoon ba fanweeri nit faatu ci ñooñu seen bakkan Ousmane Sonko def ko gën fan lañ nekkoon ba ay milliards alal réew mi yàqu fi ay milliards doxandeem yàqu fan lañ nekkoon su fekkoon ne nañu waroon taxawee taxawee nañ ko gis ko muy wax lu du dëgg ñu ne ko sëñ bi taxawal kon yëpp yi doog si fii. man hmm. ba léegi ñu jàpp ko parce que nag moom lañ faraloon dem nañ ba yëpp yi nar a yàqu ñuy génn di naan ñu jàng nañ jàngale ji xaal laaw xaal su jàng nit ñi diine bañ xam ba xam bañ xam li leen tere ak lim leen digal. Hmm. lim leen tere nañ koy bàyyee ak lim loolu la ñuy xaar ñoom waaye ay comportement politicien ça suffit et là ma je lance encore un appel solennel au qu'il doit il doit rester tout appel pour liberté provisoire Ousmane kon li ñuy wax naan bunt yëpp tëj nañ ko ci fekkee ñu ba accéder waaw Ousmane Sonko moom mënu Ousmane Sonko moom fenêtre rek porte yëpp ay tëju que nag du du liggéey tey jii dossier Ousmane Sonko fu mu toll mu di ci wax mm. parce que un boo xam dafa nekk ci instruction mais état président bi waru ci am même bu fekkoon ne daf koo mën dañ ko war a xeex ba mu dakk parce que loolu day émission du du l'exécutif dans le fonctionnement de la justice loolu kenn moo ko dàq c'est pourquoi je ne comprends pas ay Serigne Diop. Hmm. ñu ne même Macky na ko Serigne Diop daf ko war a dénoncer en tant que euh, homme de droit ministre la justice. voilà c'est ça c'est dommage. waaye ba ci intellectuels yi nga xam te jot nañ ci. naa naa fekk sax. xam nga nit ki mais la démocratie ci anam du ñëw un juriste bu ñemee ne président de la République waxal ministre de la justice mu wax procureur li ñuy topp Ousmane Sonko ñu bàyyi ko doo juriste naafaq nga c'est des mercenaires mais c'est peine perdue ils n'auront pas gain de cause duñ ci am ndam ci li ñu. peut-être xëy na yow ni ñu gisee ba jàpp ni sa culpabilité elle est. non non du loolu loolu bari culpabilité. ah loolu c'est inévitable c'est-à-dire Ousmane Sonko li fi am ci réew mi 2021 moo ko fi def. moo appel mortel combat fukki nit ñëw faatu moo appel mortel combat fukki jóge fin fukki nit a juróom benn faatu moo woote wàcc mbedd mi gatsa gatsa ba ay milliards yu alal réew mi yàqu fi ak ak doxandeem yi moom ci Ousmane Sonko doxut mu ne présomption d'innocence yow ci moom doxut juge man man pour man présomption de culpabilité laa koy jox parce que nag bu si baam je crois moom war naa xam ne